ñu ngi am mbégte dalal euh, kon docteur Oumar Boun Khatab Thiam moom mooy président alliance nationale pour la sécurité des patients docteur ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM. maa ngi lay fay madame Ngom di nuyu ñëpp auditeurs yëpp ñuy mm-hmm. nuyu seen waa seen collègue yi. Mhm. ñu ngi lay fay. alors docteur tey la ñuy màggal bés bi ñu jagleel wàllu wér-gu-yaram ci àdduna euh, thème bi nag di la santé pour tous maanaam wér-gu-yaram ñëpp mën cee jot. Euh, wala paj mi euh, loola di ñu may xëy na ñu mën a natt nit ñi ni ñuy jotee ci wàllum paj ci Sénégal est-ce que yomb na tey li ñu naan accès au soins. maa ngi am mbégte donc di leen dalal di wax ci affaire santé bi surtout bés bu ñuy célébrer euh, journée mondiale euh, wérgu yaram léegi li ma mën a wax mooy wérgu yaram bi dafa feebar hmm. maanaam santé bi dafa feebar mooy euh, fi ñu toll nii problème yi bari na santé bi feebar na sooxe na te am na naam ay jéego yuñ ci def mais am na yoo xam ne loo xam ne waxoon naa ko fii ne boo jëlee banqaas bu mag ci santé bi lu mu mel ni hôpital Dantec nga ne danga koy tabaxaat naam lu rafet la waaye doo ko def ci précipitation boo ko defee lu jur mi ngi nii maladie xamatuñ fuñ jëm toqi nañu jaaxle nañu ñu ni nii même radiothérapie boobu am dante keroog de dégg naa ñu am feebaru cancer am nañ problème pour pour jot ci pour voilà donc euh, nit ñi jaax maladie jànnaxe nañu xamatuñ fu ñu dem rax sa dolli hôpitaux yi amatuñu jumtuwaay pour liggéey personnel bi tout le temps ñu ngi ci grève ñu donc euh, affaire yi moo tax loolu moo tax et suñ toll nii en tout cas santé bi doxul hmm. waaw nañ waaw. santé bi te état def na lu baree bari président de la république du du denc di ko fàttali alors fan la problème bi nekk. président de la république. du hmm. denc di ko fàttali effectivement saa yu nekk mu koy fàttali def naa def naa waaye nag dafa war a ànd ak un saytu. Hmm. bu ñu defee ñu toog di saytu xool parce boo defee alal ju toll noonu da nga war a saytu est-ce que dem na fi mu war a def parce que man am na naqar bu rëy ba ma déggee ci audit yi Cour des comptes du mois ah, loolu ñuy wax ministère de la santé ah alal ju rëy yooyu ñu ne euh, en tout cas jaarul yoon ci ministère de la santé loolu maa koy naqarlu ci mbas mi ci mbas donc loolu amoon na fu mu xëjoon alors donc par rapport à tout ça mm. saytu dafa war am régulièrement mm. waruñu toog ba tëj toog ne xëtt ne jon daal ne nii nañu nañu saytu waaw parce que personnel bi concerne nous maladie kontaanuñu hmm. waaw président ci boppam kontaanul léegi problème bi mooy lan fu ñu toog xool xoolaat mbir mi Euh, justement président sàkku na ci euh, ministre de la santé euh, ñu wéyal audit yi mais également xool li mu li mu li mu joxoñ ne certification des établissements de santé publique maanaam xool est-ce que yenn établissement yi xëy na taxawaay wi war am nañ ko ngir mun a euh, euh, jublu ci ci ci paj meek yu ca ajo est-ce que tamit loolu du état day jéem a làqatu rek ci ci lu ni mel ndax jafe-jafe yi moom euh, yaakaar naa ne umpale wuñ ko noo déggee càkkuteef googu bu président de la république. kooku dafa war di am tout le temps mais aussi du question ñëw ne da sanctionner da ngay kii tout le temps. di saytu pour jubanti waaw di encadrer loolu hmm. loolu la du pour réprimer wala pour def nii wala pour eh, tëj fii wala pour ubbi nit ki bu nekkee ci ci règle wala bu nekkul ci yoon da nga koy jubanti waaw mais je crois que loolu dafa ànd ak système de santé bi pour que santé bi jaar yoon. kon ñàkk am saa nekk moo waral euh, ci sa xalaat yenn yi di xew ci hôpitaux yi. way way way ah, way yi daal fi mu nekk mbir mi soxe na hmm. président amoon na volonté yéene politique pour créer CMU ñu amoon ci yaakaar CMU mi ngi nii toxul hmm. hôpitaux yi ñu ngi fees ak bor mënuñu mënuñu joxe paj bay wax paj yu qualité hmm. parce que ku feebar am na souvent am na am nga boo demee am yenn say yàlla tere bula la feebar jàll dalee mun nga dem ci hôpital yooyu amuñu place fii mënuñu la jël ak def li di lay tawloo di lay traîner waaw loolu malade yi fu ñu hmm. loolu métti na ci Sénégal Sénégal deux mille vingt trois loolu Sénégal mérité wu. Mhm. est-ce que kon am nga yaakaar ci président bu sàkkoo ñu wéyal euh, réforme bi ñeel wàllu euh, wérgu yaram réforme bu ñu tàmbali woon d'ailleurs atum 1998 mais également nee nañu xoolaat euh, njëg yi ci hôpitaux yi njëgu paj mi ak njëgu analyse médicale yi est-ce que sa xel day dal par rapport ak problème bi nga souligné léegi. loolu faju ma ne réforme balaa ñu ne baax na wala baaxul dañ ko appliquer dañ koy dañ koy mottali réforme quatre-vingt-dix-huit lañ ko adopté woon am na luñ ci euh, mettre euh, luñ ci luñ ci appliqué am na lu ñu bàyyi statut personnel bi dañ ko bàyyi woon convention hospitalo universitaire bi dañ ko bay woon donc nit bu fekkee ñoom ñoo voté texte à l'assemblée ba ñu adopté ko il faut que bu jeex ñu def ko ba mu ñu toogaat pour saytu ko ne ko est-ce que li ñu defoon baax na wala baaxul ñu jooyanti mais booba léegi je crois que defuñu ko tarif yi xam kenn du kenn du li kenn du euh, liggéey bor maanaam nit ki boo ne yow da ngay defar mburu ah il faut nga am farine il faut nga am courant il faut nga fay mais boo ko amul looy defaree mburu bu fekkee yow da ngay defar mburu di jaay perte kooku mënul lekk du question perte sax mais dañuy e, war a équilibrer compte yi. Mm. maanaam maanaam bu lam bor yi dañ leen di topp di kii donc état bi moo xam na vérité de liggéey nañ ci mais moo war a subventionné yokk budget bu doy pour pour que malade yi mën a mën a tuuti parce que situation àdduna bi nga xam ne dund gi dafa jafe nit ñi ñu faju xam loolu kon yow en tant que président alliance nationale pour la sécurité des patients comprendre nga yenn tarif yi ñuy wax ne dafa cher njëg mi njëgu paj mi buñ ne dafa cher yow en tant que médecin aussi da nga koy comprendre mais man médecin la du euh, santé n'a de euh, du affaire euh, njëkk affaire coût la maanaam li ngay dugal li ngay dugal pour am santé. Hmm. pour pour am service. coût de coût parce que yow seringue bi li ngay jënd. comment il s'appelle encore bâtiment bi nga nekk machine yi ngay jënd am. ak euh, euh, jumtuwaay yi pour faj dafa njëg la njëg la personnel bi ngay fay njëg la parce que boo amul recette doo mun a doo mun sa personnel doo mun euh, faj malade doo donc bu sa personnel liggéeyul faj faj du fa te te te te te gis nga ne personnel yaa ngi grève rek yaa ngi grève boobu ba léegi parce que aussi seen droit lañ nekk. alors comme fan la problème bi nekkee problème bi ci état la wala gestion hôpitaux yi wala ñaar yëpp la. parce que lépp lu nit def état mooy responsable état moo ñu fi nekkal ñun ñëpp. Hmm. état moo waral woo nit ñi toog wax daal di lii lii la lii la donc par rapport à ça di saytu li ñuy li ñuy dugal ci ci alal est-ce que jëm na fi mu war a jëm. hôpitaux yi ñu ko leen di saytu régulièrement di leen xool waaye da ngay souvent euh, bu ñu nommé directeur hôpital doo xam ban critère lañ koy nommé dégg nga de ah, mu def jéeya fii ñu yóbbaat ko fële mu defaat jéeya fële ñu yóbbaat ko fële ainsi de suite finalement kenn xamul hmm? donc euh, saytu boobu ak rigeur boobu état def ci war a taxaw ensuite def xaalis bu mot budget bu mot waaw jumtuwaay yi cher na parce que garab yi ñun duñ ko duñ ko euh, Sénégal du ko fabriqué politique pharmaceutique boobu ñu waxoon Sénégal war ci taxaw def ci ay jéego quand ak fi ñu toll Sénégal war na mën euh, defar ay garab fii waaye affaire bi dafa yéex. Hmm. waaw dañuy wax bay wax bay wax bay mais loolu. alors euh, ci bés bi euh, tey ñuy màggal wàllu santé mu soxal surtout ñi nga xam ne ñoo wopp mais ñëpp également parce que ku nekk di nga mës a soxla wérgu yaram. lan ngay xaar comme acte euh, acte fort boo xam ne autorités yi notamment ministère de la santé war na ko teg ngir jëmmal bés bi surtout pour yéen alliance nationale pour la sécurité des patients. acte yi daal mooy toog ñëpp toog autour d'une table rapidement daal di wax. fan la ñu war a def li ñu war a def ci tembe tembe pour que euh, maladie yi mën a faj li ñu war a def tembe suqali hôpital yi rapidement rapide hôpitaux yi du moins rapidement ci tàng-tàng bi ñu mun a ñu euh, personnel bi ñu régler seen problème ñu mën a dellu liggéey et puis voilà grève grève yi jeex parce que nit bu liggéey bu bu liggéeyul bu croiser bu grève bu grévé da ñëw hôpital doo faju waaw régler problème personnel bi rapidement ñu toog dugal xaalis et puis vraiment jënd ay jumtuwaay pour que nit yi na a faju ensuite rapidement hôpital Dantec boobu ñu toj ñu baral liggéey bi baral liggéey bi baral parce que dégg naa mais ba léegi boo motul lii fa nekkoon moo fa nekk ba bañ ko tojee hmm. te hôpital boobu balaa mu koy toxal amoon na investissement yu bëri yu fa def mm-hmm. waaw ay bâtiment yoo xam ne dañ ko rénover mu beesaan ñoo toj yëpp mm-hmm. radiothérapie bi ñu ñëw ko bon mi ngi foofu xaw ma est-ce que mi ngi dox wala doxul malaat yi ñëwatuñ foofu ah. ña fa daan faju ñu jëlee leen fa ñu ngi ci ay problème ba tey problème yu rëy rëy rëy waaw hmm? te te loolu da ngay na. mais mais yooyu problème docteur alliance bi nga jiite lan la ci ban taxawaay la ci am. wax alerté. ñun alerté la ñu mën. Ah, parce que décision bi nag mooy état. est-ce que ñu ngi leen di déglu. Eh, bon déglu wu ñu déglu ñu c'est-à-dire que ñu leen neex la ñuy déglu voilà. Hmm. ñu leen neex la ñuy déglu mais ku leen ñëw wax daal di ne kii wax li nga xam ne arrangé leen duñ la duñ la woote. Hmm. <laughs> te looloo leen dal yéen hmm. alliance bi. ah bébé bien sûr man dal. pourtant ñu bari yaakaaroon nañ ne docteur Marie Khemesse en tant que médecin bu ñëwee yëfi dina tane. docteur Marie Khemesse xam naa ko lu baax am na volonté parce que nit boo buñ la boo demee moom syndicaliste la moom buñ la boo demee ba ñu fal fal la ministre sa sago mooy yëpp dox. Hmm. waaye boo fekkee affaire yi dañ ko ëpp doole. Hmm. boo demee beneen ko indee noonu lay def nit ki nag euh, li nga mën li nga mën rek nga mën a def yooyu sa yéene yi am na yéene am na pour mu dox mais xëy na le Euh, situation bi moo ko moo ko doole c'est hmm, donc le problème mu ministre Abdoulaye Diouf Sarr ak Marie Khemesse ak kum ci mën a doon xëy na am na foo foo foo xam ne daal boo fa yeggee da ngay taxaw noonu nga ko gisee. bon xëy na ñoom seen responsabilité mooy bon xaalis bi buñ fa dugal. Hmm. ñu war ko auditer foofu la seen responsabilité am ak personnel bu ñuy euh, kii ni ñuy gérer hmm. euh, jiite. ak saytu bi ñu war a saytu loolu de mën nañ leen jéggi. Hmm. waaw seen responsabilité à ce niveau nag fa la engagé wu. Hmm. parce que ñu muy représenté état. Hmm. waaw xaalis bi dugal ci Covid bi. nañ nañ ko wax fu ñu parce que personnel santé bi mënul ne loolu yëpp def nañ ko ñoom mbokk personnel de santé amul expertise pour def loolu léegi cour des comptes ba mu defee loolu nag la tàngal xolu personnel bi waaw mais nag ñun ñu ngi doon eh, liggéey ah, ñu jël xaalis bi di koy pasar pasar rek ñoom tam ñu taxaw voilà jërëjëf docteur Oumar Boun Khatab Thiam ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu mi FM fàttali ni yow yaa jiite alliance nationale pour la sécurité des patients. merci beaucoup jërëjëf docteur ñu ngi lay gërëm jërëjëf lay gërëm jërëjëf lay gërëm